Hmm. lima lima li ci aduna mu miti ma bëri na trop sax ndax bi bima duggee école nga école ba coaching la doon jàng ndax bobu suma yaay mi ngi liggéey Dakar di ma solal su ma ñëwee bu ma jàngisee da naan kii doomu lan la boobu ay costume laa doon jàngee géej yëpp euh, ma dem suma ma jàng réussir ma ci euh, aussi football bi ma bëggoon tamit réussir ma ci. sama yaay léegi bu tëdd fa doon fanaan. loolu bi ma ko def yàggut. yàggut yàggut laa daa may jógee Bambey. ah sama benn xarit laa doon tëdd ci léegi. mais dama dem xam ne. mais man limay tudd ak sama yaay ni moy lolou quoi sama yaay da dan law ci kaw ma tudd ci souf legui mak si ne xaaral xol rek di di ki di ki ba am sama ben xarit bo xamé ma dana ma sidi man ngay ñew di tudd ci kër gi si laa commencé tudd fofu nak ci mom même bi may jógee Bambey nag. kon man manam man na yow ba nga commencé di tudd ak sa yaay manam yagul quoi sa neeg yaay nga dan fanan mu dem bu jagg sa ben xarit héberge la nga fay fanan léegi nak nga tak nga tak sa fit ah ci li nga nek ni deugural sa bop ne na dugg na dugg Dakar yeungu ci affaire yi pour jema am dara teral sama yaay gars kon ki teral yaay moko taxaju xam nga ñu bari ñi ngi wax ne da ngay mbubboo wali da ngay def ci wali parce que comprendreul yalla mo la may nak nan waxante deug bu dé rassemblement rassemblement nuroo nga ak wali balago sek geste yi nga ak mom ñaari point rek mo ci des muy defarat bat bi jangat parole yi pour gën ko maîtriser lo ci lolu mo ci dess ak soit de visage te soit de visage bi moom boobu après lay ñëw boo amee xaalis. waaw léegi ni jotagul loolu après la ñeent yooyu ñoo ci manqué. bu weesoo loolu xoolal nuroo nga waali teg teg. teg teg. Mm-hmm. teg teg yaa ngi lépp feeling beeg cas geeg sañsee